maa ngi am mbégte ñëw fii ci communauté rurale bu Ronkh fekk fi sama mbokk yi nga xam ne nii ànd bu yàgg la depuis 2010 wala lu ko jiitu sax ay 2009 2008 waa kay 2008 nuyu imaam di la yónneeti nuyoo ci xalif Cerno Basir ak sunu papa sunu sëriñ eh, naye ji di nuyu Yoro chef de village ak Amader ak sunu mbokk fi nekk yépp di wax rek ne fii dafa nekk lu am solo ci man ci jàngat Pape Diop dañ ko fi fekk mu ànd ak sunu xarit ñu ñëw fii ñu jox ñu fi 1000 hectares bañ ñu ko joxee dañ ne fii kenn mënu fi bay ndax ndox mi sore woon na 12 kilomètres kenn mënu fi bay kenn bëgg ko woon ma ne leen fii mën nañ ko gas ñu ne fii kenn mënu fi bay. ma jënd ay machine jënd ay yéen presque lu mat un milliard ñoo ñu investir ci ba ndox mi gas douze kilomètres agsi ci la tax sax ñu wër ñëpp fii commencé xam ne ndekete yoo mën nañ fi bay ñu commencé fi bay ci ceeb bay ceeb bi nag li ma ci jublu moo doon defan ko chaque année man damay génn lu mat ay trois cent millions ci ceeb di ko jox daara yi ma ne woon naa ko investir fii lu ci génn ci ceeb rek ma yóbbu ko ci daara yi ñu defoon investissement bi première année yàlla def lépp baax deuxième année mu am ay jafe-jafe ci investissement bi waaye teewul population bi ne ñoom ku leen jox ñu bay comme ni ma ko waxee mayeekanti cent et quelques hectares jox leen ñu ne dañoo bëggaat ma joxaat leen cinq cent hectares ndax lu tax mënoon naa fee nekk di xëccoog ñoom. ndax biñ ma koy jox ñoom seen suufi maam la dëgg la waaye soxlawuñ ko woon waaye bi ndox mi ñëwee nag soxla nañ ko ma jox leen ba léegi sax ñi ngi bokk di liggéey ma yëkkati tamit ñaari daara muy daaray kokki ak daaray Serigne Sidi Dieng bi nekk euh, Touba ma jox leen te ñuy bay ça veut dire que mooy en dehors de am na ay daara yoo xam ne nii ñu ngi fi bay di dundal jaayuñ ko di dundal loolu nag dama leen ko wax mooy histoire bi di teg tekki nag di leen gërëm ndax dëkkandoo dafa jafe dëkkandoo fekk nit mu dëkk fenn bu yàgg dëgg la nga dem ci communauté rurale bi mu jox la suuf si suuf si loo ci bëgg bay ci liggéey loo ci ñoom ñoo ciy liggéey keneen liggéeyu ci te ñoom tamit ñu ngi ciy bay di ci jariñu dëkkandoo dafa jafe surtout ku yor ay nag yor ak jur waaye loolu lépp dafa rafet ndax duñ fi xëccoo dara te man taalibe laa saa yu masaan a ñëw damay nekk ak ñoom ci niveau bi ñu nekk dugg ci seen néeg yi ñu jox ma meew ma naan waaye bis dañ fi ñëw nag ma andi meew ñu ne andi meew ñu dem andil ma vitale ma ne leen ma ne lii moom d'accord yi ñu ne nag yi dafa ba amul dara ma ne lii mooy problème bi ci Sénégal kon nag tey jii ah, mbégte la waat man fii xëy na Kaolack moom a épuisé waaye daaw ma toog trois mois te sama yéene sax moo doon def fi village bu mag a mag a mag ndax eh, sama arrière maam maam ma fii da dëkk eh, Waalo war ko mbooj kon fii war naa fi mën a dëkk waaye nag li ma teg rek mooy méttit lu lu xew fii ndax man privé rek laa mënuma remplacer état mënuma defar yoon mënuma defar ndox mënuma defar dara état moo ko war a mën a def jamono boobu kilifa ku fi war a ñëw indi la ministre de l'agriculture ñëwoon na fi ministre bi yoroon temps boobu aménagement territorial Cheikh Bamba Dièye ñëwoon na fi andi naa fi kilifa yu bari yoo xam ne nii ñëw nañ fi léegi nag li ma leen di wax mooy damaa dellusiwaat damaa dellusiwaat en tant que sëriñ buub wala en tant que président de la république damaa bëgg a dellu nekk vrai baykat moo tax ma dellu dellusiwaat moo tax yii ngeen wax yëpp incha allah danañ ci jublu defar ko bu baax a baax ba xamee ne nii da ko mën a jariñoo bu baax a baax a baax a baax mu am ndox moo am école yëpp plan yëpp pare na yëpp pare na Pape Diop mi nga xam ne léegi nag ma profité wu ci. pour wax euh, wala gën a expliquer mag profité wu ci pour expliqué cinq millions d'emplois yi xam nga statisticiens yi wala ñi nga xam ne nii ñooy ñoom la ñuy wax jànkat yi dañ ñuy réeral temps en temps suñ nee Sénégal un million six cent mille chômeurs fi nekk te population active dix millions lañ entre quinze ak 34 wala 34 ba 60 ba 59 ans 10 millions lañ soo demee ca euh, IPRES ak caisse sécurité social total ak emploi état bi yëpp motuñ mille waa léegi soo nee 1 million 600 chômeur fi nekk ana ñi ci des. waaw ana ñi ci des looloo tax ñun programme bi ñu def xëy na ñoom dañoo bëgg a yem ci li nga xam ne nii moom lañu xam. waaye ñun dañoo bëgg a gëstu gas leneen loo xam ne nii ay emploi la yoo xam ne dafa nekk secteur informel mooy ñiy bay ñiy sàmm ñiy napp ñooñu ñu bañ leen a considéré comme ay emploi tey emploi lañ ndax man mii même suma ma moomee sama société damay déclarer sama bopp en tant que employé jàppale leen ñoom bañ formaliser mën a employé loolu boo ko boolee ak li nga xam ne nii ci mbay mi rek mën naa créer deux millions d' emplois par at ndax Sénégal dafa am 9 millions hectares te fii rek fii ñu nekk tey 250 mille hectares lañ fi mën a bay ci ceeb te liñ fi bay matul 75 mille hectares kon dese nañu daanaka lu mat 100 125 mille hectares moo ci des 175 mille dese nañu 175 mille hectares yoo xam ne nii war nañ ko mën a bay te loolu buñ ko bayoon moom daanaka mën naa génn fii daanaka. lu ëpp deux cent cinquante mille emploi emploi boo ko booleeg mbay mi ak transformation bi ak distribution bi kon nag Sénégal suñ bëggee développement bu gaaw il faut que création emploi bi yaatu te li koy indi mooy agriculture rek moo mën a absorber emploi te loolu buñ jëlee milliards yi ñuy investir ci tali yi jël milliards yi ñuy investir ci euh, luxe yi ñu jël ko séddale ko ba àll bi am li mu war a am am infrastructure yi mu war a am am ah, électricité bi mu war a am kon emploi bi léegi mu jeex te ah, ah, chômage bi léegi mu jeex te emploi bi dana nekk ci biir rural bi waaye bu fekkee dañuy compter emploi yi nekk Dakar rek kon daanaka dañ naan kumba am ndey ak kumba amul ndey mooy ñi nekk ndakaar rek am droit am emploi waaye ñi nekk ci àll bi amuñ droit am emploi kon nag loolu laa ci doon leeral di wax ne fii bay boo ko bëggee defar da nga koy aménager wutal leen jiw encadrer leen wutal leen machine Sénégal mën nañoo bay li ñuy jégaane bitim réew kenn mun tax xalaat ne fii comme li mu la wax deux cent cinquante hectares nekk fii yuñ mën a bay te benn bu ne boo ko bayee noor ak nawet mën na laa génneel minimum dix tonnes à l'hectare kon day mel ne ni war nañoo mën a béy fii deux millions cinq cent wala trois millions de euh, tonnes de riz et bokkut ak lañ mën a béy Casamance bokkut ak lañ mën a béy Tamba kon nag euh, man ñun suñ programme daal nañ jàpp ne liñ bëgg a bu baax a baax mooy agriculture élevage ak pêche nga ñëw ci élevage élevage da xool ne. ñii ñëpp kenn ku ne koo ci laaj ma ngay am ñaata nag nga am nga baal ma fël ah ñaata nag waaw 40 xoolal boo demee Europe mënoo fa fekk éleveur bu am 10 nag wala 20 mais nag yi day nekk nag yoo xam ne day suur ñu di ko ratt meew bu baax ñu di ko dundal bu baax ñun loolu lañ leen bëgg a yóbbu du day jeex am nag rek di dàq muy dem da ngay bu baax soo paree ñax mi nga jël ko dundale ko jur gi ñu accompagner la ba nga xam ne nii bés bu nekk da nga mën a ratt meew nga dem jaay ko loolu nga jaay ñu def ay ministère de transformation fii ba nga xam ne meew mi doon jóge bitim réew day jeex dootu dugg dootu jóge te bitim réew ñun xam nañ lan mooy créer emploi ndax créer nañ emploi da fekk secteur boo xam ni dañ lay wax carrément ne la fi emploi munu fi créer mais ñun ñu créer fi emploi ba nga xam ne nii moo am njëriñ waaw tey fii ci euh, région de Saint-Louis ak euh, ak maatam dañ koy def benn pôle objectivement mooy fexe ba euh, ay société yi nga xam ne nii ay direction yu mag yoo xam ne ni mooy chargé de développement yi léegi fii liñ ciy gën a pousse mooy céréale fekk ba céréale bi doy capital céréalier ak tamit pêche wax nañ ko fële bañ nekkee Saint-Louis et en même temps euh, élevage bi fii tamit ba Jolof mën nañoo produire euh, meew mi Sénégal bëgg yëpp en tout cas man maa ngi leen di gërëm leen sant di leen ziare ci weeru koor wi di wax rek ne euh, fii tamit dafa nekk porte d'entrée de l'Europe en passant par Maroc fexe tamit ba mu nekk zone échange bu mag a mag a mag boo xam ne ni danañ mën a def échange ndax mur euh, Mauritanie mu ngi nii suñu wet te ay consommateurs yu mag lañ te du ñuy béykat yu mag kon ñun war nañoo mën a béy lu ñuy exporter Mauritanie ak lu ñuy def lépp maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw question. yow selon ce programme naka la état mooy aménager site yi moo ko war a aménager andi leen fa ndox andi fa courant loolu c' est le soo demee Maroc loolu la roi di Maroc garantil baykat yi bu paree loolu moo créer condition yu mën a am jiwu waxuma ñu may leen ko jiw bu baax boo xam ne nii day nekk jiwu certifié ba pare organiser tamit ba nga xam ne nii matériel agricole bi day disponible ndax tey fii au lieu que ñu ubbi buntu ne demal jëndi matériel agricole fu la neexee boo ñëwee ñu subventionné la dañuy jël benn opérateur économique rek mu indi ay matériel agricole ñu jël ko tas ko du agsi ci baykat yi ba nga xam ne nii dañ naan Sénégal ñu ne la tant de tracteur indi nañ ko fi waaye boo demee ci àll bi doo fekk benn tracteur tracteurs yi ma nga Dakar wala jël nañ ko dugal ko feneen loolu moo indi problème bi ba nga xam ne nii investissement yu mag day bloqué xam nga dara war naa attirer seen attention euh, ceeb bi ñuy importer bitim réew ndox maa ngi fii di sotti ko ci gi suuf saa ngi nii bari ba bëgg a dee ndaw ñaa ngi ni liggéey kon kay euh, manque d'encadrement état moo tax euh, investir uñ ci waaye buñ ci defee li ci war yéen nii sax da ngeen ñëw investir fii ci fale bi pour am revenu yu am doole. Inch'Allah,